حبيبكم طه خادم القرآن في مدرسة سيدنا عثمان بن عفان آتانا الله من فضله من لا بأن سين بوكو سنغالا دي سين دارا بتدو أستاذ طه نيان دي لجي يالا تي تيرم بي دي القرآن الكريم تي دارا جي نيوخ دارا سيدنا عثمان بن عفان دي نيو موكي سيد انترنت يب di nuyu mbokk ñi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi di nuyu mbokk sénégalais yépp jiital ci xalifa généraux yi nga xam ne ñoom lañ toogal fii ci barab bi di jàngale téere yàlla bi muy xalifa généraux yi nga nekk ci senegal yépp nuyu tamit suñu mbokk sëriñ daara yi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk li ñu dal parce que ñoom ñëpp wax dëgg yàlla am kenn ku ne war na na ci métit bi ci bët ci boppam def na ko yëfi boppam métti nañ ko taxaw nañ ci taxawaay bi nga xam ne moo ci war ci mbooleem association islamique yi ci mbooleem association sëñ daara yi rawatina bi nga xam ne moo fédéré association yëpp muy association euh, euh, euh, maître coranique du Sénégal muy bi nga xam ne moo fédération bi di nuyu ñi nga xam ne ñoo ci nekk ñëpp di nuyu waa aar daara di nuyu waa madaris di nuyu mbooleem yeneen association waxdatul kataatib di nuyu jamaiyatu naasirul xaq jamaatu ahlul quran wa sunna nuyoo gi daal matale na mbooleem sëñ daara yi di leen wax na jaajëfal nañ leen ci accompagner bi ñu accompagner ci li nga xam ne mooy natt bi daal suñu kaw te ñu koy sant yàlla bu baax alhamdulilahi rabbil alamin sama cosaan ci mu gàtt Oustaz Taha Niang jolof-jolof la waaw jolof-jolof la di sët ci Bamba di sët ci Malick mu mu gàtt di sët ci Bamba ngir sëñ Fàllu di sët ci maam Cheikh Seydil Hadji Malick ngir maam Abdoul Aziz Dabakh mi nga xam ne waaye juróom moo tudd soxna Safiyatu Niang soxna sëtu soxna Safiyatu Niang Ahmed Daado mooy magam Ahmed Daado ngañ xari ngay xëri ku ne xam na ko moo jokk ba jëm ci sañ Fàllu ci suñu cosaan nag mooy kàmbeel kàmbeel dëkk la boo xam ne dëkk nitu yàlla la ay nitu yàlla rek ñoo fa dëkk la fa nekkoon ci ay daara kenn xamut nu mu toll daara ya fa doon tàkk kenn xamut nu mu toll muy dëkk boo xam ne dëkku diine la teg ci dëkku lislaam la Kàmbeel boo bëggee xam fu mu nekk mu ngi nekk Taïf Taïf ku ko xam commune ba moo tudd Sadio arrondissement ba Taïf la département bu Mbacké région bu Diourbel foofa la ñuy juddoo ñun foofa la ñu yaroo waaye Ndakaaru tamit la ñu màggee fii ci daara ji daara ji cosaanam amoon nañ maam bu ñuy wax maam nga ñang boo duggee ci daara ji moom laa taf ca kaw moo jur suñu waajur sëñ Ibrahima Ñang kooku boo xoolee moom it nitu yàlla la xam-xam kenn ëppale ko woon saybatul di la woon teg ci aalim la woon ginnaaw suñu waajur wi nga xam ne mooy sëñ Ibrahima Ñang actuellement mooy imaam dëkk boobu ma lay wax mooy Kambel suñu waajur woowu moo fay jiite lépp loo xam ne sa tund wa ci wàllu diine moom la fa mag ña teg bàyyi ko xel lool mu doon taalibe sëriñ Babacar si Mouhamadinil Mansour suñu waajur woowu ah moom moo indi daara ji fii ci ndakaaru bi mu koy indi Dakar li ko waraloon mooy àll ba dara amatu fa ku bay du am bekkoor am na mooy jamono 80 jëm 85 jëm côté yooyu loolu nag mi ngi ko def 1988 bi mu koy indee ndakaar boba man niñ ma netti ma ngi nekkon sama ginaaw wayjur wu jigen di bot. mu ngi indi mi ngi indi sama mak buñu wax Ousmane Niang ak sama mak bu wax Abdul Aziz Niang ak ñeneen ci ño xamna mbokk daara yi la xalé yu bari ñoon waye boba dañ doon ñew fi di jang di wat bu bay jotee ñu dem bay mom mu nekk fi yoré ko ba ci yàgg sama wayjur xawa mak, doon mak mu wo ben serigne biñu wax serigne ñang njaga ñak ñepp xam ko ci jangale alquran sama papa nak moma dal jang waye señ sëñ mo moo sama allu ñu ngi ñaanal yalla yalla doli ko yermane kérok bi mi wacc liggéey liñ xeyma ci li mo xamne ay kangam lañ yu mokkalee ci daara ji euh mat nañ 33 personnes ba lu ko jégg nga xamne dañu mokal bokku tek ñi nga xamne dañ fay ñew ba am alquran am seen mecc génn fi 33 moo mi ngi seen dënn moo leen ko jàngal ba maîtriser ko man mii ci laa bokk. waaw. te te booba dañ doon jàng di yelwaan dañ doon jàng di yelwaan mu yoroon programme bu doy waar gis nga programme am li ci gën a yéeme bu doon xatun ma génne la kayam bi bis bi nga ñëwee ci daara ji day bind bis bii nga ñëw bis boo dalee mu bind bis bii nga dal. bind bo jël leçon bo jël mu bind na commencé na qul a'udhu bi rabbin naasi ba fi ba ba ngay mokal alquran amul ben bis bu ko ci échapper nga amna programme intellectuel la ñi fi mokal alquran ñëpp nak euh, ci ciosana daara ji ba léegi ñi mokal alquran ñëpp sëriñ bi ñëpp jangale jiwuñ waye amna ñu fi carré daara mohammed ñang mi nga xamna moy sama taw papa concours alquran bi amoon 2017 xale ba jëloon concours ba yaakaar naa seen télé bi da ciy jàng mooy Moustapha Niang kooku mooy waay juróom sëñ Makhtar Dieng alxaaji Malick Diaw dañu daan wax ne yéen fi njëkk jàng jàng alquraani fajar ak alquraani marax lépp dina dem bàyyi fi lépp dina fi jóg alquraan ji des te alhamdulilahi rabbil alamin yàlla ngi may ci loolu bi mu gaañoo njaboot gi yëpp toog consulté wu fekk bi muy gaañu amoon naa ay moyen nag Séné Dakar wuyu woon na ma waaw ah, Dakar wuyu woon na ma parce que ñu bari xamoon nañ ma yàlla mayoon na ma am na lu ma mayoon ci wàllu baatin beneen bi amoon naa doole di bay ci maraîchage tamaate bay naa ko sama loxo bopp bay naa soxna saa ngi ni toog fekkee na ko bay naa lépp lu ñuy bay ci wàllu kii ba génnee ci loo xam ne leer la ma ne lii daara mën na ci dund loolu nag defuma kon pour bopp mais étit laa doon def pour naka lañ mën a génnee ci te la ma doon def pour moom la woon booba waaw boo ko defee nag yàlla dogal mu gaañ ñu ñu jël daara ji teg ko ci sama loxo fin 2019 ak 2020 ñaari weer la ñaari weer la xam nga Covid 19 la ñuy wax daanaka damaa jël daara ji Covid ñëw ci laa dégg am ku ne la 15 mars dinañ jàpp xale yi. man ma dogg ne billaahi la 15 mars dinaa tabax sama daara sëriñ bi parce que benn nawet moo ma fekk nawet bi taw ba waame ma nekk ci biir daara ji xale yi ma jaaxle lool parce que nekkoon ci ay dëkkuwaay yu neex sa waajur génn liggéey bàyyi la ñaari baraag mu taw ba ndox mi dugg ci biir ma woo xale yi na leen toog leen ci biir ndox mi ñu toog ma dogg ci yàlla na ko maa ngi lay jaan déwén booy tawaat yàlla nga ma may ma mbaar mu ma tiim moo xam ne ndox du toq waaye bu waaj ne damay tëj daara ma ne damay tabax daara le mars daara ji ñaari baraag la woon le 20 mars bii passé 2020 ci laa ko tàmbali un mois ma génn ak xale yi am fu ñu liggéey ñu tabax ko mu mel nii euh, li may wax mooy nga xool sa bët Cheikh Aji Omar Fouti Taal ñitu daara maam Bou Kounta Ndiassane ñitu daara moo tax ñoom année bu nekk bu ñu wootee nit ñi fëx fekk leen ba léegi ñoom amuñ ancien nangam duñu retraité at bu nekk bu ñu wootee mu gën a xumb nga dem ca laayeen noonu mu gàtt pour sénégal yi mën a xam daara loolu mooy njëriñu daara léegi nag daara dañ ko tënk ci ñetti tur del alif ra mais ñetti lettre lettre bu njëkk bu mooy del nitu daara boo gis daalun alal xayrat alal xayri nitu daara boo gis moo xam imaam la moo xam ustaas la bu wàccul li ko yàlla jox moo xam sëriñ la moo xam ku mën di doon moom foo ko gis sa quartier ba mu nekk dafay teg tegtale yiw quartier bi bu jaxasooyee yenn saa yi ñëpp ñu ne xaar leen sëñ daara bi bu ñëw wala xaar leen imaam bu ñëw te bu waxee ñëpp déglu ko te yenn saa yi mën naa moo ci mën naa la problème bi boo demee ci maanaam au mu njariñu daara génn ci ñun population bi fi ñu toll dañuy soxla ñun day jëriñ population bi te soxlaalu dara population bi parce que yàlla moo ko sant loolu parce que dafa am fardu kifaaya ak fardu ayin fardu ayin mooy loo xam ne dafa war ñëpp mooy julli mu am fardu kifaaya loo xam ne bu ko ñenn ñi defee mu wàcc ñenn ñi sëriñ daara nag ak nitu daara ak imaam bi ak ustaaz bi ñoom loolu lañu yenul yenoon population Sénégal bi ñu war koo xam allahu yaxfidu ahlul quran wal islaam yàlla moo ne daara alif gi man maay wattu waa alquran ak waa diine coow li bëri na lool waaye ba léegi diine ji moom ñi ngi mi ngi tegu ci yoon rek parce que yonent bi dana woon al madaris qabla al masajid dem leen ci daara yi jàngi bala ngeen dem ci jàkka yi parce que li ci daara ji mooy defar li ci jàkka yi coow li nekk ci jàkka ji nag kur ñu demu joon te daara ja bëgg am post ci jàkka ji ñoo ko waral te jàkkaay Sénégal yépp nekk partout daa le Sénégal coow li ci daara ji coow lu ci jumaa ak jàkka yi ñi demul daara dem jàngi leneen ba retraité paa yooyu ñoo ñëw ci jàkka ji bëgg a waral coow li ci jàkka ji waaye bu doon nit daaree nag coow li duna kur mooy allahu yaxfidu ahlul quraan gis nga corona bi feebar lu ñu bëri li ñuy wax taalibe yi duñu sol daal taalibe yi dañuy yelwaan taalibe yi dañu ubbi seen poddi taalibe yi takkuñ masque waaye ndax depuis at mu manqué tuuti dégg nga taalibe bu corona dal yàlla moo leen di watt xam lu mu leen di wattoo ñoom dañoo takk masque boo xam ne yàlla moo leen ko jox buñ xëy na xasbuna allahu wa niamal wakil maa wàcc alquran maa koy sàmm ñi ci nekk maa koy sàmm téere baa ngi nii xam a ñaata saar la 114 xam ñaata xisib la xisib mooy luñ boole ba ma sëkk soixante xisib loolu xale daf koy mokkal parkeuriser ko di ko tari am naa ko ci daara ji fan yi koo xam ne chaque semaine mu tari ko yàlla dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin maa la yónni yónni gi yërmande la yërmande gi mooy alquran ñeel monde bi xanaa ñii di xeex alquran alquran ñi ciy jàng di sauvewaale kon ñeel ñi nga xam ne dañoo bëgg alquran moo tax yàlla wax ne inna haza inna haza lillati hiya aqwam wa yubashiru almuminina allazina yacmaluuna alsalihati anna ajran kabira وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما nga indi sa beneen laaj dégg nga mu ne alquran la téere la boo xam ne day wommat nit ñi jëmale leen aljanna wommat nit ñi jëmale leen ci yàlla di bégal ñi nga xam ne dañ koo gëm ba pare di jël seen alal di def ci daara ji rek waa alquran ñooy ñooñ waa yàlla ñooy soldaaru yàlla te yàlla nee na man maa leen jël def leen ñuy sama njaboot kon alxuraan ji day bégal koo xam ne bëgg nga waa alxuraan di def teraanga jëm ci ñoom ñi nga xam ne nag dañoo bañ waa alquran mi anti daara yi anti daara am na fi nag mu ne ñooñu maa ngi leen xaaree ëllëg yoomal xiyaam yor naa teraanga waaye duma leen ci jox li ma leen xaaree mooy safara mooy mbugal te maa ngi ciy woo. ñi nga xam ne ñooy ñoo ci jóg te du suñu mbokk sénégalais alal ji ñu leen jox day jeex day jeex ci seen loxo ñoom ñu jóg fi ñu tiim leen di leen ñaanal te fexeel nag ku fi jugee kële tiim di la ñaanal bu mu bokk ci say noon bokkee ci say noon du wax lu baax de boo doonee noonam ci ci bi ngay dund kon daal mooy alquran moom téere la boo xam ne day defar te moo ma def nii moo defar Touba xool sëñ Touba bu sëñ Touba kañ la génn àdduna sëñ bi. yàgg na 1927 bis bu nekk ñu ne màggal Touba nit ñi fëx daaraa ko def Seydal Xaaji Malick kañ la génn àdduna 1922 bis bu nekk ñu ne gàmmu Tiwaawan nit ñi fëx daaraa ko def maam Baye noonu maam Bou Kounta Ndiassane noonu ñoom ñëpp kenn ku noonu cheikhul islam boo demee fële nu mu tudd Omar Fouti yi maam Omar Fouti yi ñëpp fëx daara moo def loolu bu gàtt kon sénégalais yi nañ xam ne ancien sëñ daara amut mais gis nañ fi ancien président xale yi koo ci laajoon suñ premier président bi fu mu nekk mën naa duñ ko xam ancien maire gis nañ ko gis nañ ancien gis nañ ancien mais ancien sëñ daara ancien oustaz ancien kii amul buñ màgget njariñu daara sëñ bi buñ boo demee ba màgget xam lu ñuy soxla ci yow ngay taf li loxo gars yi amul koo xam ne dafa gañe kër lu ma deux cent ñaata maison quarante cinq ñu ñu ñu ñu laaj ko mu baa mu gañe projet ba baale am na keneen ku fi ñëw toj ay kër euh, gis nañ fa ay droit yu ñu vote yoo xam ne suñu état moo ko voté muy droit de l'enfant deuxième bi protection des enfants droit de l'homme droit de la femme droit yi ñu wote nii lislaam dafa joxoon jigéen droit bu yàgg na ko yàgg góor yéen a yem dégg nga ci bu defee lu baax yéen ci yem bu defee lu bon waaye nag buñ demee ba jëfandiku jot toogal góor gi liggéeyal la jigéen ñi yàlla lislaam daf leen defoon patron mooy kenn ku nekk dafa am droit éducatif éducation dañ ci am droit ni ma ci amee droit sama doom ne dama bëgg mu jàng diine noonu la keneen ko droit ne sama doom dama bëgg mu jàng français keneen ki ne sama doom dama bëgg mu jàng leneen te état moo ko ci war a accompagner loolu laa liir ci constitution bi léegi nag bu dee droit bi ñu jox xale bi mooy nañu mag ñi doon yaree ñun te mu neex ñu lool ñu génn di yelwaan di leen indil di jàng parce que sama waay jur bi ma jur booba mënulu maa fayal mu am fi ñetti catégorie daara yi fi nekk daara euh, majalis yi muy daara cosaan yi fi jur daara internat yi alhamdulilah internat nak baax sëñ Fall internat bu amul woon doomu doomu patron yi duñ jàng parce que réalité daara bii nga xam ne mooy daara cosaan yi duñ nangu seen doom yi jàng ko kon internat maa ngi ñaan ñi fi nekk nañ yokku euh, catégorie gi nañ yokku lix bi nañ yokk lépp waaye nañ ñu fi bàyyil suñ daara cosaan yi beneen bi mooy euh, daara externe boobu bëriwul problème li ñu traversé si ay jafe-jafe nag ñu ngi ko yëg ci mi biñ ne euh, la 15 mars lañuy ramasse xale yi ramasse xale yooyu commencé woon na avant le 15 mars xew na fi xewaat fi xewaat fi ñu jàpp ay xale yu bëri man ma dem ci centre di leen lijjanti pour ñu xam ne man secretaire général la ci daara yi nga xam ne dañuy yalwaan kon lu ci xew xam naa ko muy métti di métti ba barki démboo njaay jeudi ñu yóbbu benn sëriñ bi ñuy wax sëriñ nan jaañ Ibrahima Dieng ñu tëj ko Jurbel démb lañ ko bàyyi alhamdulilahi rabbil alamin barki démboo Ndiaye Casamance ñu jàpp fa ay xale jël leen ci stade ba na dañeen delloo yàlla dogal ñu ñëw fii fekk ma fi jëloon ci suñuy xale ñuy doon def dox seen diggante ak ñoom ñu gaañ sama bët bi kon jafe-jafe yi daara di traversé ni ngi ñaan état Sénégal nañ ko nañ ko nañ ci toog waxtaan parce que ki guerre sax lu muy réy réy réy ci table la mujjee kon tamit daara am na ay jafe-jafe te jafe-jafe ay nitam ñoo ko teg bu dee suñuy daara nag ñun ci li ñuy dund ci daara ji door ko daara ji jafe-jafe yi moom alhamdulilah bëriwul nag waaye am na lu ñuy soxla loo xam ne ay mesure accompagnement la te yenn saa yi ay bonne volonté ñoo jàpp ci. daara ji alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi fi jàng ñetti façon jàng man maa yore alquran ba fi sama nekkee woon alquran dong lañ doon jàng nag waaye am na sama benn rakk boo xam ne ren fii la jàngee ba ma koy alxuraan moom it moo topp ci man man moo topp kooku moo topp ci man moom Abdourahman la tudd ren la war a def euh, licence yaakaar naa pare na sax examen te mi ngi def formation profession professionnel euh, performe moom moom lay def actuellement yaakaar naa laaj naa ko mun ma pare na te maa ngi koy dugal ci information moom mooy yor wàllu arab bi xale yi fi mu toll nii boo waxoon ak arab ñu ci bëri dee la tontu. am nañ fi benn monsieur boo xam ne mu ngi tudd Mamadou Dieng yaakaar naa moom bis bu nekk dina xëy ci si daara ji daara ji la bokk maa ko dalal jàng maa ko defar lu nekk fi mu toll nii moom mooy jàngal xale yi français ñu tuddee ko ñun curriculum de daara curriculum mooy ñu jaxase njàngin yëpp pour ëllëg xale bi am avenir moo xam fan la prime avenir am jëm bu paree lu ci mën a jëriñoo mu jëriñoo ko ci mais du tey daara ji sax si moom. Maam mhm, Mouhamed Dieng nag. actuellement toujours je suis étudiant à l'université Cheikh Diop de Dakar à la faculté des sciences économiques et de gestion en niveau licence 1 je suis au Dara depuis la fin de l'année 2019 sous l'autorisation de mon grand-père pour intégrer l'école coranique pour que demain ma famille mes proches puissent avoir confiance en moi, qu'ils n'auront aucun problème envers Dieu, car après la maîtrise du, du Saint-Coran et des livres communément appelés fiqh en Olof, en français jurisprudence, pour que je puisse les aider à mieux adorer Dieu et à savoir comment faire pour la pratique de la prière, maîtriser le Saint-Coran comme l'a tantôt dit notre cher monsieur Oustaz Taha Nyang, plus communément connu, connu sur le nom de Oustaz Hassan. Depuis que j'ai intégré ce Dara, je ne l'ai pas regretté, mashallah. عزم ما جسي أنون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون إن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى قلق عظيم فستبثر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا ودوا لو فلا تدع المكذبين ودوا لو ولا تدع كل حلاف معيم مشاء بنميم ما شاء الله jusqu'à présent là j'apprends le Saint Coran et le terre communément appelé Al-Akhdari je suis à la dixième page et tout ça c'est grâce à Sadara Dar que je l'ai connu lorsque je suis venu ici le maître coranique m'a donné une confiance totale j'apprends les élèves le français le, chaque samedi et dimanche et même lundi si j'ai pas cours à l'université je viens ici les aider et machallah il y a des il y a des talibés qui lorsqu'ils maîtriseront le 5 ans même je demanderai autorisation quand même à, à, à, mon marabout pour les intégrer dans les écoles dans les écoles françaises car machallah ils savent très bien écrire et très bien lire et même avant que même tu les apprennes certaines choses, machallah, ils les maîtrisent. Et ils n'ont pas de problème. Machallah, on s'aime entre nous. Moi, je me considère comme un talibé. Parce qu'il y a des gens qui considèrent un talibé comme un, comme un analphabète ou bien comme un homme nuisible à sa société. Or, ça, ce n'est pas, c'est, pas le cas. Car les talibés sont là pour Dieu. Ils sont là pour la population. Comme l'a tant dit notre maître, quand quelqu'un meurt, on appelle l'imam. Quand quelqu'un a un baptême, on appelle l'imam. Quand quelqu'un euh, veut mourir, on appelle l'imam. Tout ça, c'est grâce à, notre marabout. Donc nous, on doit les aider. Je lance un appel au chef de l'État, le président de la République Macky le père de la nation, qui nous donne les moyens nécessaires pour la survie des Dara. Car le président de la République, dans son campagne en 2012, avant d'être président de la République, il a parti chez tous les marabouts. Les guides religieux, ils ont fait des prières, machallah jusqu'à être présent de la République. En 2019 aussi, il est reparti, machallah jusqu'à présent, il est présent de la République. Et lui, où il est assis, où il est assis plutôt, il, il dit, faites des prières faites des prières pour le Sénégal dans son plan même PSE, comme on le dit, plan Sénégal émergent. Il veut un Sénégal émergent. Et je vous dis, vous, les 16 millions de Sénégalais, le Sénégal ne pourra jamais être émergent si on veut détruire le Saint-Coran. Car le, euh, subhanahu wa ta'ala la ilaha a dit Sayyiduna Mohamed je envoyé pour avoir pitié pour le monde. Car si ce n'était pas les, les, les, les, enfants, les, les, les Dara et les talibés, ah, Dieu allait détruire le monde. De... Dieu allait détruire le monde. Dieu n'a ni de commencement ni de fin. Et il avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Ghulama ou warsaful anbiya Pour boroom xam-xam yi ñoo fi utu yonent yi ñoo fi utu saxaaba masha'allah en ce moment, ses, yeux sont un peu aveuglés, mais machallah, je répète, je répète, répète, répète plusieurs fois jusqu'à qu'il puisse maîtriser ça. Et machallah, cette chose-là, je l'ai ici dans ce dara. C'est tout mon, mon, mon, marabout, il est là, Ousastaha, qui m'a donné ça. Et des fois même, c'est Talibela comme, comme Sedina Ousmane, machallah, chaque semaine, il apprend le saint a. chaque semaine. Chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine, machallah. Et si j'ai des difficultés quand même, euh, je viens, je lui dis, Ousmane, cette sourate là, cette partie là, je ne sais pas comment il, il me dit c'est ça, ça, ça, ça, ça et ça. Machallah. Et c'est grâce au Dara que la population vive. Il faut, il faut, il faut que nous connaissions ça. Car c'est très important et c'est primordial. Comme on le dit, comme le philosophe le dit, le doute est l'élément essentiel de la philosophie. Là, le Saint-Coran est l'élément essentiel de la religion. Vive le Saint-Coran, vive le Saint-Coran, vive le Saint-Coran. Alhamdulillah, rabbil alamin sama monsieur bi wax ne euh, parce que confiance motax yene say day jang ci sax fekk xalé yi alcorane wax day jang ci bu xé xalé du wax len ci kaw wax rigueur ci la xale yi di def te actuellement mi ngi université mënoon naa def comme xale yi mais ku baax la te aussi da ngay gis ne day former xale yi formation bu doy waar ak dynamique boo xam ne euh, c'est extraordinaire muy nit ku baax koo xam ne aussi euh, li ñu koy rek mooy moom avenir. association islamique yi moom ak association yi nga xam ne ñoo ngànk daara yi dafa am benn association bu ñu tudd association. الاتحاد آه، الوطني لجميع المدارس القران في السنغال من فيدراسيون ناشونال اكول قرآن في سنغال بو دفا فدرة 700 اسوسياسيون يامنا اي اسوسياسيون سن دار لين ا فيدراسيون بي دي ليغي ليغي بو ام موتشي ايب نك اورغانيزي كو باغا خامني 14 ريزون يي سي سنغال ا 45 ديبارتمان يب ام نان فا اي نداو commune bu Grand Dakar man coordinateur yor relation intérieure extérieure li ci am association secrétaire général je mi asila ak mais sen organisation am nañ ci organisation mais xamuñ ji parce que dimension spirituelle bi ñor dañ euh, dégager. responsabilité ko leeral ko askan wi xamal askan wi réew mi fan la toll ak fan la jëm parce que assurance dafa war a participer ci vie euh, économiquement ci dundu doomu aadama yi ci leeralal leen seen diine leeralal leen seen adduna leeralal leen seen avenir leeralal leen tamit mama bi fi àdduna bi jëm ak seen war a taxawaay parce que damay gis ne association yi ci ëpp benn sama benn mbokku daara wax na ma ko na ñoom dañuy taxaw rek pour défendre daara ji amuñ lu ñu benn cadeau bi ñuy jox askan wi ba askan wi mën a toqamtiku cadeau boobu ba gëm leen parce que liggéey boobu tamit ñu ngi leen ci soññ nañ génn di wax ak askan wi di communiquer ak nit ñi ci média bi ci lépp pour askan wi xam fan lañ jëm parce que tamit lu am rôle bu am solo lañ mën a jouer ci Sénégal bi ko defee ñi nga xam ne ay ustaas lañ ñu nekk ci biir télé yi wala ñu nekk fu nekk nañuy waxal yàlla nañuy waxal yàlla waxal yonent bi parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana leen al ulamaau warasatul anbiya yi yéen boroom xam-xam yi yéen ma donn du kër gu rafet lañ donn ci moom du oto yu rafet du jigéen gu rafet du dëkkuwaay yu rafet du colin gu rafet xam lañ doon lan lañ dolli ci moom kitaabullahi wa sunna jël alquran ji leeralal ko nit ñi ba leer nàññ ban ban ban cee changé virgule ban cee dolli virgule boo demee ci alquran yàlla dafa wax ne laa tabdiila li kalimaatillaahi bu la kenn jox lenn lu la jaral changé aaya alquran bu la kenn jox lenn lu la jaral changé xadiis yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam falsifié ay alxaji am da si da baax daanaka wax kon ñu ngi dénk tamit ñooñu rawatina ñu toog ci yenn organe de presse yi ñu toogal fa diine ji toogal fa daara ji toogal fa sénégalais yi parce que euh, place yu ama yu kawe la ñuy gérer te mën nañ ci jàllale message yu fort te message yooyu mu ngi ko jàllalee mën na jariñ diine ji mën na jariñ nguur gi mën na jariñ réew mi mën na jariñ sénégalais yi te Cheikh Hadji Abdou Dabakh da daan wax ne ku nekk ci gaal gi yor ci ëmb bul ñaan sa ëmb mucc da ngay ñaan gaal gi mucc bu gaal gi muccee sa ëmb mucc nit ñi mucc waaye bu gaal gi muccut sa ëmb dafay des nit ñi di te fitna mi ngi nelaw yàlla nee na rëbb naa ku ko yee yàlla nee na rëbb naa ko yee fitna te man yàlla xam na ne non violence ci lay dox sëñ daara yi ci loolu la ñuy dox association sëñ daara yi ci loolu la ñuy dox te bu ñu seneen Sénégal nekk ci jàmm ñu waxtaanee mbiru daara yi li ci état bi man subventionné ak liñ ci mën a solutionné ñu solutionné ko li nga xam ne mënu mënuñ ko nag ñu bàyyee ko ñi nga xam ne ñoo ko jagoot ñoo koy dund seen waay jur yi xam nañ ko seen yaay yi xam nañ ko oustaz bi fiy dund xam na ko xam na ni muy def pour am xaalis waaye doona mag kenn du ko ba macha allah. Sénégal dafa am lu fi tumuranke te ñu ngi ñaan yàlla mu dellu siwaat mooy tarbiya surtout jàngale am na mais yar jafe na xool nañ ci réew mi ci jamonoy 2011 ñu ne dañu am problème éducation éducation de base bi baaxut éducation de base ñu dem ba si yàgg ñu ne problème système la systématiquement baaxut ñu dem ba si yàgg ñu dem ne xale yi fi mu toll nii jamono yàq na leen te man damaa yërëm xale yi parce que amatuñu repère ndaw bu amul repère rek sànku te dafa am ñaari taxaw seen kanam di seen adversaire te xamuñ ko muy télévision ak internet muy loo xam ne ñaara ci nekk muy ijaabiyaat ak salbiyaat muy positif ak négatif te kon parent yi am nañ part de responsabilité ci taxaw ci diggante ñaar yooyu tànnal leen bi nga xam ne mooy positif bi parce que yaay ut connection yaay ut yi ci aju daara yu njëkk ak yu mujj nag daara daara la rek san départ ci ku yor daara ci ak lan la bëgg ci xale yi ak naka lay doxalee ak daaraam ak yan programme la yor fan la humanité am toll parce que humanitaire dafa am solo ci nit ak sa dogu ñaar daf ñaar dafa am al azm wal hazm dogu ak takku arab dana nit ki Cheikh Tidiane dana himmatul insan qahiratun fi jamiil akwan manam himma doomu adama bi ci ni mu amee yitte defar nit loolu moy dem ba note ko dina fexe ba lam bëggon day am bu doon 100% pour da ngay rom am 150 wala am 200 te Euh, sa imaam Ali yu dana man allamaka xarfan waaxid fa huwa mawlaaka ku la jàngal benn xaraf sa kilifa la te yàlla lu ko gënal euh, joyante benn nit bu baax moo gënal nga ànd ak junni nit yu réer waaw benn nit bu baax ma ànd ak min saalikin kayfal hawa min haalikin kayfal hawa bal faajaban min saalikin kayfa najaa bu la yéem ñu ne kan moo la yéem mu ne ki nga xam ne dafa fexe ba alku dafa fexe ba perte dafa fexe ba sànku kooku bu mu la yéem ñu ne ko kan moo la war a yéem mi nga ki nga xam ne dafa fexe ba jaar ci yoon mi arriver ba pare réussite ci wàllu yàlla réussite ci wàllu àdduna réussite parce que àdduna dañ ko ci boole mais réussite bi mu def ci wàllu yàlla ba nga xam ne nit ku jub la donte na ministre la mais jub na donte ne président la mais jub na donte ne ab sëriñ la mais jub na donte ne jub googu mu jub na la yéem dégg kon kéemaan gi mooy nit ki ni mu def ba raw noonu na la yéem léegi nag tarbiya yi mag ñi yoroon nag bu njëkkoon dañuy xool ne sëñ Faal mi wala sañ Jeng wala sañ Moodu kii moom bëgg na jàng te ci jàng mën nañ ko ca yar ñu yar ko ci am jàng ñu xool ne kii moom dafa dëgër bopp ñu yeneloo ko ay mat ñu xool ne kii moom moom bëgg na liggéey ñu liggéeyloo ko kii dafa rëy ñu jël pot jox ko na ko damay yalwaan loolu moo indi woon yalwaan kii dafa rëy nga xam sëñ bi sax bu ko waxee mu gis boppam léegi nag dañ koy jox pot na ko demal wëri ci kër yi ñu ibbil ko indil ko ay bool yu bokkut bu paree mu toog lekk ci bool yi mu commencé dindi ak réyam daara yenn saay sax nga gis ci réew mi ku yor doomam yóbbu ko école ba mu jaaxal ko nangul jàng nangul të ñu ne yóbbu leen ko daara ja te bu demee daara ja daara ja orienté waat ko defaat ko muy nit boo xam ne ëllëg bu duggee société bi jëriñ société bi jëriñ boppam kon mag ñe lañ doon yaree mi ngi fi ñi ko ñi ñi leen doon rek nañ téyewaat yar yu ni mag ñi te luñ dolli ci daara ji baax na nag ci dolli rek baax na parce que dolli ci li jëm mi méngoo jamono te yàq njàng yi nu xale yi yàqul dara macha allah alhamdulillah rabbil alamin lima dund ci daara ji nak moy eh, nek ci sa papa bo xamne ne sa rakku papa la mu di la nga nek ak mom to xamone sa papa la mu di la janggal, di la jangal di la ba nga mokal alquran bis nga xey mu ne la kay nga ñew mu téeg déglu la nga tare kamil bi bam yegg bis nga mu ne la kay ngeen and ye ñaar nga dem ba sa kanamu papa mu ngay doora xamne ki ne nek ne sa rakku papa la nga tari kaamil bi ci sa kanamu pàpp ba mu yàgg mu ne la demal nga sant sa kanam sa sëriñ bi nga xam ne moo la doon jàngal alxuraan jël ay teraanga moom ci boppam togg ay sarax jox ay ñam loolu bu ma ko fàttee sama xol day sedd guy te te lu ma am ci àdduna rek lu ma nit ñi di xoolee rek loolu sëriñ maxtaar def ci man moom la ni ma nit ñi di xoolee ba mu dénk ma wiraasaam kon nag loolu moom neex na ma lool rawatina nag dénk biñ ma dénk wiraasaam waaw loolu moom alhamdulilah ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla dolli ko yërmande alquran ji yàlla fay defal ko fa leer yàlla xara ko aljanna ak mboolem ku fa fekk ak li mu liggéey ci alquran yàlla na ramb mboolem kuy Sénégal yàlla na ci jaaree sax xalaat yi ak dóor bi ci xew ak yëpp yëkkati fi corona bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ah, li ñu métti ci daara ji nag bëriwut déedéet parce que daara kala fay yóbbu xam na ne daara ji neexut te biñ fiy jàng. sëriñ bi macha allahu tabaraka wa moom laa gën a bëgg ci kaw suuf amul ku ma gënal sëñ maxtaar ci kaw suuf ginnaaw yonent bi te bi ñuy jàngal njàng mi yombul woon booba ndakaaru leer na neex na taalibe yi mën nañoo sonn te kenn du wax droit yi fi aju amu fi woon nañ doon jàngee ñun ak ni xale yi di jàngee bokkut euh, loolo nekkin booba xawoon na metti lool waaye kima ka def mom la gëna fa ci kaw suuf benen bi lima gëna metti nak moy mu dem bay aduna sama tur dong lay tuddu ma nek ak mom ma jël sama propre main fa mu def opération ma génn ko hôpital mu ñew tedd fi ma nek ak mom di def sama moyen di def sama moyen di gor yalla jël ko jël gogu mu jël ko mom bam ko jëlé lenn dong joy ma sëñ maxtaar parce que xamna na yalla dina ko defal teranga yomal khiyam mais li ma doon jooy mooy projet yi nga xam ne dama ko mébét doon ko bind nga xam ne lépp ci turam laa ko doon def bëggoon ko jëlee ci min minal asfal ilal aala maanaam jëlee ko ci suuf yóbbu ko fa gën a kawe projet boo xam ne dama ko bind bind ko muy 67 million étudier ko mu jaar fi mu war a jaar yëpp def lépp ci turam waxtaan ci ak moom ba nga xam ne jël loolu mu sotti ma teg ko ci ay loxoom rek laa bëggoon defal ko teraanga jooju yàlla dogal mu génn su heure bu ma xalaatee projet man daaw ma jooy sëñ bi mais projet bi laa daan xalaat projet bi depuis 2011 ma def ko sama xel waxtaan ci ak moom mu nangul ma def étude yëpp ah yàlla jël ko loolu moom bu ma ko xalaataan rek sama ronq yi du mën a du ma ko mën a téye ndax xam naa ne sëñ bi def na ci man loo xam ne daal yàlla dong laa koy bàyyee moo koy fay incha allah. daara moderne man maa njëkk a moderne daara. mais dañ ci juum nag réforme réforme la ñu war a wax dégg nga sëñ xam nga lan mooy réforme mooy ñëw naa ci daara ji fekk nañ njàng mi baax na waaye dëkkuwaay bi baaxut ñu ne nañ defar dëkkuwaay bi bàyyi fi njàng mi daara moderne cooli li muy bëri bari ñaar moo ko waral mooy dañ ko waxtaan ba mu yegg tëwuñ ci sama classe gi ñu yor daara yelwaan état bi la ko sonal lépp mooy lenn la bu wootee waxtaan ñi muy waxtaan ak kenn yoru fi réalité daara te bu coow li amee coow li kur bu na kur daara yelwaan moo ko waral coow li Sénégal yëpp na kur yelwaan bee ko waral te lu ëpp buy toog du toog ak ku yor daara yelwaan léegi nag dossier yooyu bu ko waa daara yelwaan yëgee rek dañuy jóg taxaw na dossier bi nañ ko arrêté parce que ñoom d'accorduñ ci kenn woowu leen ci yëguñ ci seen bopp gisuñ seen bopp que c'est normal nit ki boole kenn ku nekk yaa xam sa màtti lal boo bëggee waxtaan ak jigéen guy sëy dangay waxtaan ak kay sëy laaj ko lan mooy màtti lalam mu wax la ko problème mu daara yalwaan la léegi nag état coowal daara lépp yalwaan la nay waxtaan ak sëñ daara yi moo tax projet de loi bi amut daara moderne yi nag ñu ngi koy dégg ñu ngi koy dégg partout dans le Sénégal waaye liñ ci gis bëriwut ñiñ ci xam ñi ciy jàngale bëriwut donte ne nee nañ am na ñu wax 64 daara la 34 euh, euh, public 34 privé nu ñuy tuddee daara public daara yalwaan yi ay daara public la daara privé yi mooy internat yi ku am doole demal fay ku ku amul doole na indi ci daara solution bi nag mooy nañ ko teg ci taabal waxtaan ci loolu ci laa def projet bi xam nga projet bii bi ma koy wax jàpp ku xale yi 2011 laa la wax ma dem suñ dëkk. ut fa surface mille cinq cent mètres carrés mais muy quarante sur quarante mille six cent mètres carrés yooyu ma defar plan plan bi mi ngi fii bu ko kii woon ma won na ko mu am aménagement foo xam ne xale yi fi la ñuy tëdd am foo xam ne fa la jàngale yi kii kat yi di tëdd ma def jàkk ci biir def cour bu yaatu def ci ginnaaw espace pour fu xale yi di fooye mille cinq cent mètres carrés yooyu ñu def étude yi ma joxe ko fay ci sama xaalis bopp mais defu ma ci sama tour nag turu sëñ Maxtaar ñang rek njaga ñang boo demee ba léegi projet bi moom nga fi fekk alhamdulilah nag woo nañ ma bana ne bane yaakaar na am nañ ci yaakaar ni ñu ciy ñaan waaye projet boobu noonu bi ma ko defee ba pare solution laa lay jox de pour état damaa demaat man ma bàyyi Dakar complètement ñaari at. deux ans dem aménager waat beneen suuf du toll noonu ut ndox xëcc fa rëbbi na def maraîchage ma ne daara ji de bu ñu ci indoon kàmbeel bugguma xale yi génn comme ni ñu doon defee façon boobu léegi naka la ñuy def pour ñu mën a dund fokk ñi nga xam ne mënuñoo fay ñuy bay di dundee ma bay fa tamaate bay naa xaal bay mbooleem li ñuy def ci maraîchage ñi ñu xam ko lu ci ab lu bëri bi ma ci génnee étude étudier ko ba xam li ci génn ci six mois yi laa ne lii mën na yor sax lu dul daara mën na sax di génn asaka la ci génn ci xaalis si mën na dellu si ma def ci baana baana def ci éleveur def ci lu bëri te yooyu yëpp ci étude bi la bokkoon ci étude projet bi parce que après nee naa sama papa am nañ fa suuf man ka ka quatre hectares ma ko quatre hectares yi buñ ñu ko joxee dama bëgg ñu ut ndox bu daara yi ñëwee fii ñuy bay état bu doon ne noonu la bëgg a solutionner daara solution dina am te kenn du ko laaj fay parce que njaboot tam gii ñuy fay yenn saa jàngalekat di génn ne suñ fay matut du laaj ay indemnité di laaj lu nekk kon du lu ñuy donte na dañuy lebal xaalis bi bul ko lebaloon sëñ daara yi sëñ daara yi delloo ko ko bi ma ko waxee sama papa démb dana ma Cheikhu Tidiane Al Maktoum bi muy defar sokku sim fii leb ne état 7 milliards yam doon wax. te daf ko fay ba mat sëkk mhm. te loolu nitu daara donc moo ko man mhm. parce que li tegu ci loosam bor bi du ci xalaat xaalis bi mais ëllëg yoomal xiyaam la ciy xalaat moo tax ndax da koy fay solution bi nag mooy état bu toogee waa daara yi ay intellectuel ñu ngi ci boroomi xam-xam ñu ngi ci ay boroomi science ñu ngi ci psychologue ñu ngi ci psychologiquement ñoo xam ne seen xel yi ouverture lañ ñu ngi ci mën nañ ko jox solution yoo xam ne du du xëy ne damay régler daara yépp ci façon bii mais man na ah euh, exemple ñu ne boo demee commune u HLM aleykum salaam HLM commune ba fa nekk ñu ne ah commune HLM ñaata daara fa nekk ñu ne dix daara ñu ne léegi nañ essayer benn programme ci cinq daara yi cinq daara yi bu ñu ne sëñ daara bi ah am nga terrain ci àll bi ñu ne waaw am nga fa suuf waaw dañ lay lebal nangam ci xaalis ñooy nga dem tabax foofa am nga foo tab bay ñu ne la waaw nga dem ñu dem defal la aménagement bay mu ànd ak projet bi ànd ak suivi suivi bu amee sëñ daara bi dina bay ba fay xaalis bi ba pare at mu nekk mën naa génn asaka delloo ko ci état bi état bi delloo ko ci daara yi te man lii mooy ci sama xalaat boo xam ne mën na solutionné daara mais bu amut coow li fi ne la naan kur jappal état bàyyil taalibe jappal jàppal état bàyyil taalibe te gis naa ci ñenn ñoo xam ne fañ sen seen euh, tension mi ngi fi te tension bu yeggee fi ci borom nag lu ne xaj ci kon maa ngi ñaan état na bàyyi xale yi ramas te ñu toog te ñu toog waxtaan. dans l'ensemble daal li nga ko résumer. Hmm, hmm. état buy wax na wax ak borom daara yi. wax xool psycholo ñaam euh, islamologue islamologue la ñuy tudd est-ce que duñ leen logal dara wala benn maître euh, doo xam koo xam ne franco arabe la franco arabe la yor wala ñu indi koo xam ne internat kese la moom lay jàngale boo ko subventionné ba pare bëgg ne dimbale naa daara yi dimbaloo daara problème bi nga xam ne mooy tax ñuy xeex muy euh, cosaan bi xeexoo ko dindee goo ko ba léegi kon tam loo ci financé sa xaalis problème bi dafay desaat. waaw gërëm tamit suñu soxna mi ngi fi macha allah accompagner ñu fii ci daara ji di ñu jàppale ci xale yi di gërëm suñu waajur mi nga xam ne moo ñuy suñu kilifa euh, di gërëm tamit sëñ daara yi dinaa ci cité ñaari tour muy sëñ maxtar Sarr moom dañ koy cité parce que moom gaynde fàkk tëdd la. Sénégal yëpp seedeel nañ ko ko sëñ Cheikh Mouhamed Amine Fall dinañ ko cité cité suñu président bi nga xam ne moo nekk dakaar muy sëñ Mansour Samb di cité mu mu yóbbaale mboolem euh, ñi nekk ci biir association bi cité waa aar Congaan mbooy borom waxdatul kataatib ñu yóbbaale mboolem waa euh, waxdatul kataatib kàdd yu mujj nag mooy dénk sénégalais yi li ma leen di dénk mooy. diine ji mag ñi dañ ko ñag encouragé leen ci ñoom parce que ñoom ñoo yor internat yi ñoo yor daara yelwaan yi sénégalais yi ñoo volonté wu yor daara te daara dafa am ay réalité yoo xam ne ku fa nekk dugg ci biir xamoo ko am na loo xam ne yow mii bi nga toogee fii nga ko xam boo jaxasoog nit ki rek xam ko Mamadou Dieng mii bi mu jaxasoo ñun la xam li nekk ci biir réalité daara ji dëgg dëgg dëgg dëgg kon li leen wax ci kaw lu ci ëpp du dëgg li ci biir ñi ci biir ñoo ko xam dénkaane bi nag mooy yi nga xam ne dafa bon te lislaam bugg ko ci góor ñi maa ngi koy gis muy xew ci jamono col mu sew góor goo xam ne day sol tubéy joo xam ne kenn xamul nu tudd nu muy tudd peew lay tudd góor gi takk lam góor gi takk jaaro góor gi léttu góor gi takk chaîne góor gi euh, sol yére yoo xam ne daa xam yan couleur la waaw ji may dem ci jigéen ñi góor gi tatouage góor gi tatouage yaramam yonent bi dafa wax an mu nammisaat wal mu jaat kuy xeec sa sàkkaru yàlla walla ngay xees sa yaram wala ngay xeesal sa yaram ëllëg yoomal xiyaam boo teseeg yonent bi doo ko gis jigéen goo xam ne du sol lu jot te jigéen biñ laajee lislaam lan moo doon solam ci alquran dane wa yaxfazna furujon wala yubdiina zinatahunna illa ma zahara minha buñ feeñal ci kanam ci ci ci jëmmam lu dul li si yàlla feeñal mooy loxo ya ak xarxanam nga borom yonent bi ne mar'atu kulluha awratun ma al wajhi wal kaffayni jigéen gi léppam awra la ba des xar xanam yi ak tànk yi liy feeñ li ci ëpp yëpp bu feeñee moom mu ko génne day am bàkkaar ña xool dañuy am bàkkaar ci ci ci ci diine laay wax liy feeñ li ci ëpp moom bu ko génnee moom mu ko day am bàkkaar ñu ciy feeñ day am bàkkaar koy xool dañuy am bàkkaar kon nañ defaraat toogaay yi ci biir kër yi regle toogaay yi ci biir kër yi pénc mi jag bu rek bu biir kër yi jagut penc mi du jag mhm. te penc mi nag ñun ñëpp ñoo ko bokk mhm. wattaqu fitnatal mhm. laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa moytu leen fitna boo xam ne bu feeñee ci ñëpp lay dal fitna boobu nag benn la mooy ñiy agressé pas-pasu nit ñi te mi ngi ci réew mi ñiy agressé pas-pasu diine mi ngi ci réew mi sama ndongo yi ci daara ji tamit ñi leen sant parce que ndongo lañ yoo xam ne man dañ ma fa parce que damay communiquer ak ñoom ah yii xew yu bees yu ñuy dégg muy feebar bi muy eh, yeneen yi ñuy dégg ñu koy xam mm-hmm. ñu ngi ñaan yàlla yàlla bu mu fi am place li fi mag ñi sampoon yàlla na fi sax liñ donnee ci yonent bi yàlla na fi sax li ñuy wax rek mooy Seyda Xaaji Malik dane maa kaana ayban saara xusnan tawaafuqan laqad jalabu li diini kulla balaay lépp loo xam ne ayib la borom xam-xam yi borom diine yi seetaan nañ bañ rafetal ko bëgg ko dugal ci diine ñu toog di ko seetaan rek ñu koy placé indi nañ diine lépp loo xam ne balaa la musiba la nañ ko fexe mu génnaat ci borom xam-xam yi rawatina kilifa yi. dakaar Média di sant journaliste yi ak caméraman bi nga xam ne moo taxawoon di ñu jël boole kooku macha allah taxawaay bu rafet di ñaan site bi yàlla doon ba dan ay tele ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله السلام ورحمة والبركة من الله عليكم